maintenant ci mission yi ngeen jox yow jël ci benn dugal ay projet de loi au niveau de l' assemblée nationale. ñu koy saluer nag maintenant dafay jaadu askanu Sénégal xam lan mooy projet de loi bi ak fan ngeen ci toll. parce que déposer de projet de loi am na solo lool. mais fan lañ ci toll pour askan bi mën a xam réellement ce qui sa passe. Mhm. waaw fi ñu ci toll mooy bi ñuy déposé proposition de loi bi sukkandiku ci article 60 réglementé assemblée nationale. ngir modifier loi bi nga xamante ni moo fi nekkoon 1965 muy loi 1965 bi 60 pour que acte contre la woon jamono boobu. Mhm. nga jël si li nga xam mooy code pénal alinéa 3 article 319 mu ñëw di wax ci mbirum acte contre ci maanaam ban anam lan koy jox si nit ki ak lan lan koy condamné ak lan koy amande. Mhm. loi bu njëkk bi nga xam ne déposé woon na ko à 2022 bokkoon naa si ñu ko déposé woon. ànd ak sama naattango yan député yi ak waa ànd sàmm jikko comme ni nga ko waxee mais ñun luñ visé woon visé wuñ woon acte contre nature dañoo visé woon homosexualité mais bii yoon comme ñun damaa xam ni loolu bokkoon na si ñu ni comme loi bi am na fi bu pare jërëtul ñu koy déposé waat loolu moo tax la nga xamante ni jàppoon naa ne moo tax ñu refusé woon maam ñu ñu bañoon ko ma visé si loolu pour que njëkk tàmbalee foofu ba pare lissé ko nag li nga xamante ni maanaam moom moom la war a àndal. Mhm. acte contre euh, homosexualité lesbienne mhm. lépp loo xam moo jëm ci mbir moomu mu ngi ci li nga xamante ni moom laa déposé pour ñu financé ko. Mhm. ndax loi bu njëkk bi da doon wax ne nit koo xam jàpp nañ si ak contre nature ñu ngi lay tëdd diggante trois cent ak cinq ans amende bi nekkoon diggante cinq cent mille ba cinq millions francs CFA man ma ñëw ne lii pour man dafa tuut nañ ko modifier ku ñu jàpp ci si acte contre lay doon. mais booba dañuy jël peine bi yóbbu ko jël ko euh, trois cent def ko dix ans ba quinze ans. Mhm. amende bi ñëw un million ba cinq million francs fa loolu moo tax ka ma déposé ko promesse la boo xam ni ñun ñoo ko defoon. Mhm. campagne woon ko. Mhm. boo gisee suñuy vidéo sax ci réseaux sociaux yi. ñun ñëpp ak Ousmane Sonko dañoo waxoon nii Macky Sall dafa am ascendant nguur jigéen. te di taxu ñu wax ko dafa amoon ay piste yoo xam ne gisoon nañ ni. lii xeeñ neexul parce que am na tey ay procès yoo xamante ne ñu ngi ko doon bëgg dugal ci mbirum éducation pour jàngale ay sëy si biir rek yu demee noonu benn. Mhm. ñaar bi gisoon nañ ki nga xam mooy premier ministre bu canadien ñëw fii di wax affaire ngóor jigéen ak Barack Obama. Mhm. ñu ne comme lii bokkul ci li nga xamante ni maanaam mooy suñu cosaan ak suñu aada. jàpp na ni kii lii nga xamante ni mooy li mu jox tey fóor ba ñëwee ba am ñoo xam am nañ sañ-sañu ak fitu ñëw suñu éducation ba fay loo xam ne méngoowul ak li nga xam moom lañ doon wax. Mhm. ñu ne kon am jóg taxaw. wax ak sénégalais yi wan senegal ni leen kii lii la bëgg a def mais kii lii la bëgg a def tax na ñu jëloon proposition de loi ne léegi nañu jël li nga xam mooy proposition de baare loolu wax ak sénégalais yi dem ci kilifa diine yi bu nee ba loolu antuwul man en tant kilifa diine doomu daara nekk député yàlla may ma ma fekk démb lan doon wax bokk ko si ña ko doon wax tey bu ma gisee la Macky Sall doon def Diomaye fay di ko def ak Ousmane Sonko. la ma waroon a def mooy la ma defoon booba ci jamonoy Macky Sall loolu la moom war moom laa war def ci jamono Ousmane Sonko parce que ñoom ñaar ñëpp kenn amul ma si njariñ askan wi ma ñor gis naa ni Diomaye Faye bi mu faloo recevoir nag ñi nga xamante ni mooy dañuy wax day jàppale ngóor jigéen muy premier ministre européen gis naa Ousmane Sonko premier ministre recevoir fi Molusson mi nga xam ne nee na moo njëkk dugal loi ngóor pour ñu daganal ngóor jigéen ci France kon comme que waxoon naa Macky Sall ni ko damaa gis nga recevoir premier ministre bu canadien ak ki nga xam mooy président Obama ma gis kii mu recevoir ki nga xam mooy Malanso ñu recevoir premier ministre euh, ak président Union européenne ma ni kon arrêt la ma déposé woon ñu lànkoon ko bokkoon si la parce que naa jël initiative parce que wax ji Malanso wax ak ji ko Ousmane Sonko tontu méngoowul ak ñun li doon wax moo tax ma def proposition pour ñu criminaliser li nga xam mooy. nguur gi continuité la daal continuité la. Mm-hmm. dafa am tuuti changement ci biir. parce que man fi ma tàmbalee acte continuité laa tàmbalee pour climat te bu njëkk homosexualité lañ tàmbalee woon moo tax ñu ne homosexualité bi mooy acte continuité loolu moo tax ñu resté woon loi wala ne mm. moo tax ma sukkandikuwaat waxtaan ak borom xam-xam yi mu war a waxtaanal ak li ma am si expérience parlementaire pendant deux cent man euh, euh, deux mandats bi mooy sama deuxième mandat ma ne fa lu xam li nga xam mooy ay loi ak ay proposition loi ak ay proposition moo tax que ma